bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa ashaabihi ajmahin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisaani yafqahu qawli wajhal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa xalbi arshida mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel bu baax ci weer wu tedd wi nga xam ne moom la ñu nekk mu di saxaru ramadanan mubaarak di profité di ci ndokkeel jullit yëpp di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu defal ñu jaamu yàlla gu ñu nangu defal ñu koor gu ñu nangu na ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne fukki njëkk yi yërmande la awaluhu wa awsatuhu maxfira wa axiruhu xifqun min an fukk yi ci digg bi njéggal la fukk yu mujj yi goreel la ci sawara yàlla nañu yàlla yërëm yàlla nañu yàlla jéggal yàlla ñu yàlla goreel ci sawara yàlla nañu yàlla nangul mboolem suñuy jaamu yàlla yëpp yu ñu def ci weer wi ndax li ci des bareetul te yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na mbir mu nekk la ca gën mooy la ca gën a mujj yàlla nañu yàlla may ñu mujj gi lépp luñ ci juum yàlla faral ñu ci njalbeen gi lépp luñ defoon ci njalbeen gi yàlla nañ ko yàlla nangul ci mujj gi te defal ñu ñu fekke ko at yu bari lool yàlla bu mu doon suñu mujjentalu koor ñi ngi tàmbalee ci nuyoo bi ak siyaare bi suñu wayjur di suñu kilifa suñu sëriñ suñu baay di kilifa yoonu murid yépp mu di Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général de murit di ñaan suñu borom mu dog mu yàggal ko fi bu baax te wéral ko ba mboolem li mu yéene ci liggéeyal ko Serigne Touba lépp yàlla kàttanal ko mu liggéey ba def ci na ko njortam ak mboolem ñi mu di ko ñaanal Cheikh Mamadou Bachir moom Serigne Abdou Khadir mi nga xam ne suñu kilifa la suñu wayjur la suñu xarit la. di nuyu bu baax tey siyaare suñu sëriñ di suñu wasila di suñu buntu ci sëriñ Touba ñu doxalee ko suñu digganteek sëriñ Touba muy suñu wayjur bopp mu di sëriñ Abdou saman mbakke moom sëriñ Sohaybu Mbacke mu Rasul di ñaan suñu borom mu dolli ko fee yàggal bu baax te dolli ko wéral ak mboolem njabootu sëriñ Touba gi yëpp. di ñaanal bu baax sëriñ Moustapha Mbacke moom Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacke moom Cheikh Mamadou Fadil. muy Serigne Moustapha Alaaji Baara ci xaaliya ñuy ñaan suñu borom mu doole ko fee yàggal te doole ko wéral moom suñu soppe la te du dañ waxtu wu nekk saa su nekk muy béral ak cofeelam ci ñun di nuyu bu baax tey siyaare Serigne Ahmadou Rafahi moom Cheikh Mamadou Fadel waaye di nuyu Serigne Abdou Karim Mbacké moom Serigne Fallou Serigne Abo Khalifa Cheikh Mamadou Fadil ak mboolem njabootu Serigne Touba gi yëpp bàyyiwuñu kenn Serigne Ahmadou Badawi moom Cheikh Mamadou Fadel di siyaare bu baax a baax nag kilifa suñu Serigne. di suñu wayjur di kilifak Mbacke mu di sëriñ Abdoulahi Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa Maam Mor Jaara Mbacke mag borom Cham waaye di nuyu bu baax it euh, suñu sëriñ suñu kilifa mu di sëriñ Amdi Fall Modou Mbenda mi nga xam ne mooy xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Fall Babul Muridina di ñaan suñu borom mu doole ko fee yàggal bu baax te doole ko wéral ba lim yéene ci liggéeyal ko sëriñ Touba Cheikh Ibra lépp suñu borom kàttanal ko. di nuyu bu baax it sëriñ Abdou Rokhaya Fall eh, mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Mortala Fall moom itam di ñaan suñu borom mu dooli ko fee yàggal bu baax te dooli ko wéral ci barkeb sëriñ Touba barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall lamp Babul Mouridina mbokk yi nag télévision Futurs média am jataay bu am solo boo xam ne dañ ci waxtaan ak yéen ci diine mu di seetu Ramadan ni ngeen ko gisee ci bande annonce yi mu doon jataay bu am solo boo xam ne télévision Futurs Médias moo leen ciy gunge ci weeru koor gi bis bu yàlla sàkk di ci ànd ak mbokki taalibe yi ak mbokki jullit yi xam ngeen ne suñuy jataay bële paase ñi nga doon waxtaane taxawaayu jigéen ci lislaam bi jàll na xam ngeen ne jataay bu am solo boobu nga xam ne moom la groupe Futurs Médias organisé mu di festival salaam xam ngeen ne fan yëpp ñu ngi woon ci taxawaay boobu moo tax àllarba bi jàll déggu leen ñu ci waxtu wi loolu ngeen ci doon am ñu ngi ndokkeel bu baax président Youssou Ndour ci initiative bu am solo boobu nga xam ne moom moo di taxawaayu festival salaam mbokki nag tey jii xam naa ci kanam tuuti daañu waxtaane leneen ak ñeneen ci jataay bu am solo ci bis bu am solo waaye ci kilifa gu am solo waaye ci mbir mu am solo ci taxawaay bu am solo ci kanam tuuti incha allah ñu bëgg a tënk rek lu gàtt ci li nga xam ne moom lañu ñu dëgmal te muy farata mu di muurum koor muy li ñuy tuddee asakay muurum koor muurum koor nag day farata farata la ci ab jullit bépp boo xam ne mën na ko mu warit képp koo xam ni ab jullit la te suñu borom togg ko jëf te mu di askor doonte sax nag amoo loo joxe asakay muurum koor waaye jàpp nga ne boo lebee di nga mën a am loo ko fayee lislaam nee na farata la ci yow fiq nee na yow mi nga xam ne asakay muurum koor war na ci yow nee na doonte amoo mën a joxe waaye tey boo ko leboon yaakaar nga wala xam nga ne di nga loo mën a faye lislaam nee na farata la ci yow nga leb loo mën a fay bu jàllee nga mën koo fay léegi nag kon mi ngi war nit ki ci boppam ak képp koo xam ne yaa ko war a dundal asakay murum koor dafa war jëmmi yow jullit bi bi nga xam ne taxawe nga weeru koor ak képp ki nga xam ne ab dundam ci saw loos la aju kooke itam yaa ko war a génneel asakay murum koor boo ma laajee kan ak dama naan ku mel ne sa soxna yaa ko war a génneel asakay murum koor ndax ab dundam ndax lislaam ne seeni soxna ñaar yi yéen la war ci ñoom mooy dëkkal leen dëkkoo leen moo tax lislaam nee na kon sa soxna yaa ko war a génneel asakay murum koor bu fekkee sa doom ju góor ba keroog muy mat góor maanaam keroog muy majeur nga xam ne moomam boppam lislaam togg na ko jëf léegi nag mu war a dem ak boppam donte du tee mu des ci baatub kilifa gi waaye bu boobaa nag asakay murum koor moo ko war a génneel boppam mu ne ak sa doom ji jigéen li feek muy dem ba am borom kër li feek amagul borom kër nekk ci sa kilifteef ci sa ron lislaam nee na yaa ko war a génneel asakay murum koor saa su amee borom kër nag borom këram moo ko war a génneel asakay murum koor ni ma ko waxee léegi mooy yow mi nga xam ne sa soxna yaa ko war a génneel asakay murum koor kon moom sa sa doom ji jigéen bu amee borom kër borom këram moo ko war a génneel asakay murum koor beneen bi ci topp it donte doonul lu bëri fii lool mooy sab jaam donte jaam nag bëreetul xëy na ci contexte bi ñu nekk mu di Afrique rawatina Afrique euh, sow jant rawatina fii di Sénégal jaam existeetu fi mooy amatu fi waaye xam ne nag comme kàddu moom dafa am solo tey nouvelle technologie àgg na foo xam ne tey jii loo wax léegi balaa mat benn minute mu génn contexte ba ko doon waxee dem ci beneen contexte kon loolu ci lislaam boole it ñu nit dañ koy fàttale rek muy sab jaam moom itam yaa ko war a génneel asakay mburum koor ana ci loo ko war a génne lislaam nee na ci li ko war a génne image bi ñu ma affiché loon léegi am na solo mooy li tolloo ak dundu waa réew mi maanaam réew mi nga nekk waaw koy mu ngoog li nga xam ne moom la waa réew ma di dunde ci misaal tey boo jëloon fii ci senegal xam nga ni li ëpp ci liñ fiy dunde mooy ceeb lu mel ni dugub lu mel ni basi fii la saaño ak yeneen yu ni mel loolu la mooy li ëpp ci dund waa Sénégal kon nag léegi da ngay xool la seen sam réew di dundee tey jii bu fekkoon da dem fu mel ne Europe nga xam ne xëy na mën naa am ceeb bëriwu fa wala nga fu mel ne États-Unis xëy na la nga war a génne mën naa am bëriwu fa l'islam nee na bu boobaa da xool ci réew mooma nga nekk la ëpp ci waa réew ma la ñuy dunde l'islam ne na nga génne ko muy assakay mburum koor waaw léegi nag kon mu ne li ëpp ci li nga ko war a génne mooy réew ma nga koy génnee la ëpp ci la ñuy dunde te loolu la soxla attention xam nga lislaam dama daan dégg suñu menn magum kilifa mu baax mu am solo yàlla na ko yàlla yokkaay leeram muy alaaji Sidi Lamine Niass mu daan wax slogan bu am solo ci kàddoom daan wax ne lislaam day du soppeeku bu mukk waaye fu mu toll dafay mën a méngoo ak jamono tey boo demoon ci wàlluk asaka général asaka ji nga xam ne ki denc alalam mu man ni saab ren ba déwén asaka jëm ciy génne l'islam dani boo ko génnee jox ko ko ko soxla te joxal ko lu ko amal njariñ ci misaal ki nga xam ne génn ne yi fukki million daanaka lu bari bëri bëri bëri bëri fukki million yooyu mën nga koo séddale ñetti nit ba ñeenti nit bu ko defee kenn ku nekk am ca départ bu dëgër moom ëllëg day génne asaka waaye kenn dootu ko jox asaka parce que bu góorgóor la dana ci liggéey waaye tey jii nga génne asaka sa fukki million di ko jox ay 5000 francs ay 10 000 francs ki koo jox la nga ko jox balaa bët a set mu lekk ko mu féete boor mu soxlawaat leneen loolu taxul lislaam di génne loo asaka loolu taxul lislaam di wax jullit na dimbale mbokkum jullitam moo tax kon ci asakay muurum koor lislaam nee na na nga ko génne ci loo xam ne moom la waa réew ma di dunde tey jii man ngaa xayma la nga xam ne moom nga ko war a génne nga génne ko ci xaalis bu boobaa da ngay xool la muy jar ndax njëgga day yéeg a ka wàcc léegi nag mën ngaa génne loolu ndax ci misaal tey ji lu doy waar ñu ne génneel ceeb ñëpp génne ceeb joxandoo ko kenn waa ceebu kese moom ku ne xam na ne lekkul naanul ceeb am na yu muy àndal comme que yamuy àndal mënoo ko génne asaka xëy na wala xëy na du yomb léegi bu ko ñuy joxee ceeb ñi ci des nañ ko jox xaalis xaalis moom jar na ceeb jar na diw jar na ndox ma koy togg jar na buhansoo ak yeneen a geneen léegi nag kon bu ko defee loole itam lu ci am solo la mooy di xool contexte nit ki la nga koy jox ndax amal na ko njariñ wala déet léegi nag nu muy toll bopp bu nekk ñaari kilo ak genn wàll muy deux kilo cinq cent deux kilo cinq cent yooyu moom ngay génne wala nga xool njëgga na mu toll nga génne ko loole itam am na solo bu baax a baax a baax léegi na kon ci wan waxtu nga ko war a génne am na sax ñuy wax ne mën nga koo génne soixante-douze heures avant Korité mooy ñetti fan waaye xalaa kulli xaalin li wérte wóor buñ nee suba la korite mën nga koo génne bésub korite ba yitam njëkk julli ga ndax lislaam dafa sib ku ko génne gannaaw julli korite ga ba noppi loola xaraamul ku ko génne itam am nga asakay murum kor waaye dañ koo sib maanaam boo ko manee bañ a def mooy li gën loola itam xikma bi ci lislaam jublu boo xalaatee rek di nga ci mën a am lu leer mooy ki nga xam ne julli nañ ba sëlmal bu ñu xoolee contexte wu Sénégal gannaaw julli korité wala gannaaw julli tabaski ñaare ñëppay tëj boutique yëppay tëj tey jii boo bëggoon a jënd loo jox sa njaboot ñu dund ko daanaka doo gis foo ko jëndee léegi nag kon boo bàyyee buñ julli ba pare nga dem jox nit ki xaalis daanaka fekk na dugg na ci lu mënul ba pare xaalis ba koy joxe daanaka bu doon ab añ la ci bëgg a defar du sotti que gisul fu mu ko jëndee léegi nag moo tax lislaam nee na teel ko ko jox ci suba teel ga wala nga fexe ba mu fanaanoo ko bu ko defee dana mën a feex waaye suba la korité Euh, muy bisu yow yowmul jaayisa bi nga xam ne moom la ko waa asamaan di tuddee muy bisub joxe kaddu nit ñi di bég di di belli di xalaat bisub suba bi nga gis koo xam ne moom mi ngi fanaan ci njàqare parce que suba amut lu mu jox ak njabootam ñu ndekkee ko amaguñ lu ñu añee amaguñu li tamit luñ mën a reere léegi nag kon moo tax lislaam bëgg nga teel koo génne jox ko ki nga ko war a jox bu ko defee xelam mën a dal bu ko defee bu tëddee mën a nelaw waaye bu xëyee rek dana ci mën a daal di jublu loola itam loo am solo la léegi nag kañ ko war a jox kooka alquran lim na ko mooy ñi ñu war a jox asaka rek innama sadaqat lil fuqara wal masakin wal hamilin alayha wal mu wala muwalafati qulubuhum ngoo fi riqabi wal xaarimin wa fi sabilillahi wa ibni sabil léegi nag ñooñu la ñu war a jox asakay murum koor kon loolu ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax xam na solo ay ci kon mbokk yi xam naa loolu luñ doon tënk la rek ci njëlbeenu waxtaan bi ngeen xam ne daal asakay murum koor farata la kenn ku nekk itam da nga koo war a génne te yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee jullit bi bu ko génnewul aw ak kooram dañ koy aj nee na kooram dañ koy aj dee su ko nangu li fee génnewu ko dafay gallu ci aw loosam ñu aj ak kooram bu ko génnee nag incha allahu taala suñu borom soog a yéege aw ak kooram kon daal mbokk yi bàyyi leen ci xel mooy génneeg asaka ak muurum koor ngeen xam ne farata la ngeen bañ koo suufeel bañ koo doyadal te bu ngeen ko génnee génne lu am njariñ te jox ko ñi nga xam ne ñoo koy teewoo tabarakallahu yàlla suñu borom barkeel yàlla nañu yàlla nangul suñu koor ay ci kon mbokk télévision Futurs Médias nag xam ngeen ne euh, waxtu nekk saa su nekk Euh, ngir jeg gën a jege askan bi ndax xam ngeen ne ñun ñooy seetu askan wi ba tax na waxtu nekk saa su nekk dañuy xool li leen gën a itteel mooy ci wàllu programme mooy ci wàllu euh, ci ci wàllu ndimbal ñu di leen ko defal loolu moo tax seetu Ramadan indi leen ay kado yu am solo euh, di leen jox seen suukaru koor man ngeen a woote kon ci 88 628 22 22 88 628. 72 86 88 628 65 65 am naa fi ñaari enveloppe yu am solo yoo xam ne bëgg naa leen koo jox suukaru koor bu fekkee am na auditer bu nekk ci téléphone bi ñu jël ko salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk moomu déggante wuñ allo maaleykum ñu ngi sant yàlla sëriñ bi noo tudd ak fooy tudd yaa ngi tudd Souleymane di wootee Thiès. waaw. Souleymane fooy wootee ci Thiès. maa ngi wootee Pic. yaa ngi wootee. maa ngi wootee Pic. ayca bisimilah sëñ Souleymane. allo maa ngi wootee Grand Estending. wax nga dëgg jërëjëf naka waa Thiès. ñu ci jàmm. alhamdulilah naka koor gi yéen a ngi ciy góorgóorlu. macha allah. gisee programme émission euh, télévision Futurs Médias. waaw man ci suukar koor laa bëggoon. waaye incha allah amul benn problème du du du yaa ngi topp ci suñuy émission waaw allah jërëjëf kontaan nañu bu baax yow itam. ci sa ci sa ak tànn gi nga tànn télévision Futurs média léegi nag kon bul coupé ñu jël la ci suuf. may naa la am ah, boo xam ne def na juróomi junni di vingt cinq mille. Ah, macha allah ko defee nga yokk ko ci ndogale rek incha allah. jërëjëf jërëjëf Souleymane bol coupé ñu jël la ci suuf. jërëjëf euh, Souleymane di wootee ca Thiès ñu koy gërëm bu baax di ko sant di nuyu waa Thiès di ca jiital suñu kilifa gu tedd googu fa nekk mu di Serigne Saliou Touré mi nga xam ne tabarakallahu moom moo nekkal xalif général mu di ca Thiès wax dëgg yàlla am fa itam taxawaay bu am solo di nuyu Serigne Assane Kane ca Nasru moom itam suñu xarit la di suñu soppee di nuyu mboolem kilifa yi nga xam ne yëpp ñoo nekk foofu njabootu Serigne Abdoulahi Yaqin ñoom itam ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di leen ndokkeel ñu jël keneen ci 88 65 euh, 65 wala 04 05 88 628 76 76 bu fekkee am na kuy yëglu ci téléphone bi ñu mën koo jël euh, lu may loolu ah ñu ñu mën a jàll ci programme bi euh, ci seen jataay bu am solo bi salaamaaleykum. ay ci kon ci kanam tuuti incha allah daañu jéem a jël keneen bu ko defee moom itam man koo may sukkaru koor ndax lii fi tege. yéen rek yéen a ko moom euh, moo tax ñu jox leen ko ndax dañoo bëgg di leen jàppale ci seen diine waaye di leen jàppale itam ci seen poos ba ngeen mën a woor ci xel mu daal ci kon mbokk xam ngeen ne dañoo dëgmal bis bu am solo muy bis boo xam ne bisub diine la euh, bisub lislaam la bisub sëriñ Touba la waaye bisub Cheikh Ibra la euh, muy bis boo xam ne tabarakallaahu njabootu a Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridina ñoom ñoo koy def wax naa ko léegi maa ngi profité bu baax a baax di nuyu tey siyaara tey ñaanal gudd fan ak wér euh, sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Merna Fall mi nga xam ne moom mooy xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall lamp Baabul Muridiina ci kaw suuf wuutu magam ju tedd jëmu di sëriñ Cheikh Jëmb Fall yàlla yàlla yokk ay leeram te dolli ko njëkkal te wanale ko ak euh, kilifaam gu tedd ga mu di a Cheikh Ibrahima Fall waaye wanale ko ak sëriñam bu tedd ba mu di sëriñ Touba Xaadim Rasul léegi nag kon ñu am bis bu am solo boo xam ne mm, dañ koy dëgmal. mooy bis boo xam ne sëriñ Cheikh Khadim Fall moo koy def euh, sëriñ Cheikh Khadim Fall moom euh, sëriñ Khadim Fall moom moom sëriñ Abdou Khadim Fall moom sëriñ euh, Mortala Fall moom Cheikh Ibrahima Fall ba bu muridina mu doon bis boo xam ne itam bis bu am solo la muy bisub sant di bisub fàttaliku di bisub ñaan boo xam ne da koy defal maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridina waaye di ko defal itam way juróomi tedd yooyu muy baayam ak maamam ak eh, di ko defal itam Serigne Touba waaye di ko defal itam yoonu murit di ko defal itam umma islami bi yëpp bis boobu nag moo war a doon la 7 mai 2022 incha allah taala ban bis la war a tombeel sax samedi incha allah eh, di juróom-ñaari fan ci weeru mai ci atum 2022 ci la ñu ko war a amal fële ci stade Demba Diop fii ci Ndakaaru kon loolu ngeen bàyyi ko xel loolu moo tax nag ñu ànd ak eh, suñu mbokk taalibe di suñu kilifa yu baax yi ci jataay bi ñu fas yéene waxtaane bis boobu fa yéene waxtaan itam ki eh, waral bés bi eh, solos bés bi mu di ibrahima a làmp Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina eh, Sëriñ Silla Baye Fall mu ngi nii ci sama ndeyjoor incha allahu taala ñu war cee ànd ak itam Sëriñ Maam na Diop moom itam mi ngi nii ci sama càmmooñ ñu njëkkanteeg waxtu wi rek Sëriñ Silla Baye Sëriñ Silla sax la ñuy wax ndax suñu wayjur nga ñu ngi lay ndokkeel ci jataay bi. Eh, di la ndokkeel itam ci weeru tedd wi ku xam na ne weeru koor weeru eh, maam Cheikh Ibrahima Fall la eh, ku ne xam na ne weeru koor moom weeru baay Fall la ndax liñ ciy def taxawaay biñ ci am doo gis ko ko ci am ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam dane woon ci hadis bu leer nañ bu ñëpp dëppoo nit ki woor ba ngoon nga jox ko lum ndogoo donte benn tàndarma la yonente bi nee na yool bu tol ne ba mu am ci kooram gi da nga ko ci am ta du wàññi ci kooram dara yaakaar naa nag romb nañu benn tàndarma kii woor ba ngoon nga jox ko mu lekk ba suur naan ba màndi euh, bu dul bu dul bu dul ndigalul Seex Ibra la bu dul ndigalul Sëñ Tuubaa la bu dul jëfe ndigal gi rek jëfe ndigal gi beneen tiyaaba la leneen la moom li ngeen def sax xamu leen ko waaye maanaam jëf gi rek jox ab jullit mu lekk wala mu naan ci weeru koor rek la ci nekk ci tiyaaba kenn xamul nu mu bu leen ko yàlla fayee ëllëg yomal xiyaam moom jàppale ne buntu àjjana moom euh, ku leen neex rek mooy dugg ku leen neexool nag moom euh, mu seeti leneen loolu bu dul dara liggéey ba Seex Ibrahima Fall liggéey Sëriñ taxawaay ba mu amoon ci Sëñ ka woote ak ka ko wuy si la tax mu woote ak ka wuy si la tax mu wuy si eh, bàyyi sëriñ si la bàyyi faal ñu bàyyi la nga nuyoo eh, bu ko defee nuyoo bi nag dañ koy boole ak question bi directement boo nuyoo rek nga attaqué ko mooy sëñ tubaa ak Cheikh Ibra sëñ tubaa ak Cheikh Ibra sëñ Touba moo woote Cheikh Ibra wuy si lu tax Cheikh Ibra wuy si ak lu mu yëg ba tax mu wuy si lu mu dégg ba tax mu wuy si ba mu wuy see ba noppi itam lu mu bëgg ca wuy si ba loolu mooy sama laaj nga boole ko nuyoo bi waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. ki tase gi ma tase ak sa jëmm ji. jërëjëf. gi jëmm ji mu neex ma lool. kàddu yi. alhamdulilah. làmboo teggin ba sama yaram daw. alhamdulilah. ndax yaay sunu sëriñ. ndeysaan. toog gi nu toog ndaw toog ci kaw sax. ndeysaan. ndax man sax. wallaay yaakaar wallaay ndigal la ndigal la. wallaay ndigal la am ngeen ci sëñ Muntaxa sant ko gërëm ko ñaan bu yàgg fi te wér ayca jërëjëf kon euh, Baye Serigne Sylla ñu baal ma xam naa ñu defaraat mikoroom dafa am tuuti jafe-jafe bu ko defee ci kanam tuuti incha allah ñu mën a nuyoo euh, sëriñ maam Thierno Diop euh, ñu ngi lay nuyu euh, di la ndokkeel ci weer wu tedd wi di rafetlu itam taxawaay bi ak teewaay bi file ci télévision Futurs Médias te ko waral mooy bis bu am solo boobu ñuy waajal la 7 mai kon ñu bàyyi la nga nuyoo incha allah ñu ñëw ci laaj bi kon ñu wax asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu waaleykum asalaam wa rahmatullah gannaaw ba ñu sante julli ci seydina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam mu ngi sant Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadim Rasoul di jaaraamaal maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha gudd fan ak wér-gu-yaram noonu lañ koy ñaanalee Baye Fall bu mag ba mm-hmm. taalibeem ba sëñ Modou Hamdi sëñ Hamdi Modou Mbenda Fall mm-hmm. mi nga xam ne mooy xalif général de mm-hmm. di ko ñaanal suñu bunt ci maam Cheikh Ibra Fall muy Serigne Cheikh Khadim cant ak ngërëm la ñu sëñ bi jox ngir ñu ñëw fii ci rajo ci télévision Futur Média indil la ko macha ci bés bii nga xam si moom lañ dëgmal wasalaamaaleykum wa rahmatullah bopp di loo xam ne bu du dara mhm. ñun ñoo war a toog fii mhm. wax ci waxtaan ci jàllale ko fàttali ko mhm. ndax lu ndax euh, Sëriñ Tuubaa suñu lépp la mhm. maam Cheikh Ibrahima Fall Babou Mouridina itam suñu lépp la mhm. am naa ci looy spécial loo xam ne xam naa ci kanam tuuti dinaa ci ñëw mhm. euh, ñu njëkkanteeg waxtu yi sëñ maam Thierno euh, dama bëggoon balay sëriñ si la ñuy euh, defaraat micro mu mën a ñëw ci sëriñ Touba ak Cheikh dama bëgg xam bis bi nga xam ne moom la ñuy waajal muy samedi la 7 mai 2022 ci stade Demba Diop te sëriñ Khadim Fall di ko sëriñ a Khadim Fall di ko def bis boobu dëgg-dëgg lan mooy cosaan li fu mu tàmbalee lu mhm. tax mu tàmbali mhm. la mooy illay bi waaw waaw boobu sëñ Mamor mhm. ñi ngi ko tàmbali ci 2003 ca Parcelles Assainies ndax bu ma juumul ren mooy vingtième édition waaw mooy vingtième édition bi ñaar fukkeelu ñaar fukkeelu 2003 le 4 avril 2003 ca Parcelles Assainies lañ ko tàmbalee foofu ci fukki baas ak juróom ak wenn wu nag macha allah ndax Serigne Cheikh Khadim ba mu ñëwee parcelle gis ndawi parcelle naam bëgg nañu sëriñ bi xamuñu maam Cheikh Ibrahima Fall xamuñu yoon wanuy jaar ngir liggéeyal Cheikh Ibra mu boolee ndaw ñi parcelle unité huit ba vingt six ne leen ñëw leen ñu sant maam Cheikh Ibrahima Fall defee ko ca Parcelles Assainies en deux mille en deux trois foofu la foofu la bés bi tàmbale yàlla sam borom di doxal muy dox di dox ba biñ koy mujjee def Parcelles Assainies la ma waxoon Lamp Fall FM rek laay waxaat Baye Omar Diouf menn mhm. moo ko mujje jàng mhm. Baye Omar Diouf yàlla yàlla yoo koy leeram te tas ñu ci barke dafa jàng gaaw mhm. dibéer altine talaata àllarba yàlla sa borom dogal dogal bi mu wàccub liggéey sëriñ bi nag xool ni bés bi apport bi mu am ak influence bi mu am ak ni mu bëggee liggéeyal maamam wane maamam mu ne xajatul foofu nañ ko yóbbu ci stade ba loolu mooy sababu mu jógee parcelle dem ci stade Demba Diop. Mhm. loolu daal mooy sababu bis bi. kon daal dëgg-dëgg bu ñu déggee tontu bi mooy sabab bi dëgg mooy. ndaw ñi nga xam ne dañoo bëgg. bëgg dafa am solo. mais xam la nga bëgg dafa am solo. mooy bëgg nañ waaye am na ci ñooñ xamuñu. Mhm. te léeg-léeg mën naa waral jafe-jafe. moom mi nga xam ne nag am na devoiru xamle maamam Cheikh Ibra. Mhm. ndax Cheikh Ibra ku ko topp jëriñu. loolu moom mu sikki sàkk waaye nag xam nga da cee ëpp solo xam kan mooy Cheikh Ibra. Mhm. xam noo koy toppee. kon loolu mooy solo bis bi. mooy xamal nit ñi Cheikh Ibra. dajale leen ci benn bis. waxtaan ak ñoom. berndeel leen fàttali leen Cheikh Ibra. teg leen ci aw yoon ba dem ba ñu. te li ma ciy dolli mooy fi ne nii bu ñu dëgmalee bés bi ci weer wi. Mm-hmm. sëriñ bi day joxe ndigal. Mm-hmm. ci daara yi. Mm-hmm. alxuraan ji mm-hmm. ñuy jàng alxuraan mm-hmm. li mu xasida mm-hmm. ba ci bës ba moom la ñuy yendoo fanaanee ko ba ca ëllëg sax macha allah loolu sax daañu ci ñëw ndax bëgg naa ñu taxaw ci ah. eh, kon ñu eh, dellu siwaat ci eh, Serigne Sylla Baye Serigne Sylla Baye faal ba defee moom mu daal yeggale nuyoo bi rek soof ci question bi muy sëñ Touba Cheikh Ibrahima bu sedd lool jërëjëf ci daje gi mu fi dajeeg yow te nga mel nii nga mel alhamdulilah kàddu yi ca lool alhamdulilah ndax ay kàddu dina jullite. Mhm. baa mu taalibee. Mhm. te du murite. dëgg la ndeysaan ne yooyu ma tudd yëpp mi sa kàddu yi. Mhm. alhamdulilah si ñoom ñu li muy rëy rëy sa taalibe maama tuddee. dégg naa war ma ji nga ko wax. wallaay te bu ngeen fi desee ñaar mu topp la. wallaay ndeysaan. kon. wallaay wax ak jongo ma ñoo yem. bu woddoo rek mën naa génn. sa wax dafa am teggin. alhamdulilah maa ngi sant nag maam Cheikh mi tax ñu ñëw fii. dëgg la nag maa laaj léegi ni ma. maam Cheikh ak sëñ Touba. am ramu lanu am ramu lanu ramu mooy. am ramu mooy danoo danoo jël si ngir teg nu ci aw yoon yoon yóbbu nu aljanna. dañoo ñëw ngir sowe sëñ. sowe waaw moo dem ramu. macha allah sëñ Touba. Mhm. bi mu ne leen Moustapha nawaytu maay jaddidu sunnatu xaraa. wa inni ahmadu mhm. booba la war a xam ni yàllaa ko wooteloo. dëgg la te ku yàlla woote loo boo wootee dañ laa war a wuyu. waaw ba muy woote de saafaxani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xam nga moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu doxee diggante sëñ beeg sunu boroom mhm. ku ko xam rek di nga xam li tax sëñ bee jóg dëgg la ndax yonent bi mooy naanukaay bi mhm. ku naan ba màndi mhm. ñëw ni ñëw leen naanukaay baa ngi nii ko ànd ak yow naan dëgg la waaye da nga xam it la tax Cheikh Ibra topp sëñ bi Cheikh Ibra li sëñ bi gis ci Moustapha ba tax mu jóg wuyu ko. Hmm. loolu la gis ci sëñ Touba ba tax mu jóg wuyu ko. baa xam nga ni maam <laughs> Cheikh. mës ta wax ak sëñ Touba ci kàddu di ko neexal. est que jëf la ko daan neexale hmm. tagg wi la sëñ Touba doon neexale yonente bi. Hmm. Cheikh Rafal di neexale sëñ Touba jëf. ndax dañ wax ni kuy jàng loo gis xam ko ku liggéeyal ku yàlla gërëm bu la gërëmee loo bëgg am ko. dëgg la jàng day tax a xam liggéey day tax a am. jaa ñaar rek fi am nag mooy sëñ Tuubaa ak Seex Ibra Faal mhm. jaamu yàlla ak liggéeyal yàlla mhm. sëñ Tuubaa du doon jaamu yàlla maam Seex ñëw di liggéeyal yàlla mhm. te kii liggéeyal yàlla nag mënta jiitu kii jaamu yàlla waaye bu toppee kii jaamu yàlla nag déggal ko bu tegee mu teg kii jaamu yàlla bu duggee kii liggéeyal yàlla dugg sëñ Tuubaa sax dafa waxoon lu am solo dane woon jaamu yàlla ak liggéeyal yàlla dafa niroo bokkul jaamu yàlla ay cër a koy def liggéeyal yàlla nag ci jaam ñi la koy def <laughs> xam nga maam Seex <laughs> ndogu yii nga tudd léegi ndax dafa wax ni yett a gënal yàlla jël naa ko ku ma ci fekk si baax na ku ma ci fekkul wéy naa. Mhm. tudd yàlla gënal yàlla. dëgg la wala dikrullahi akbar. liggéey ba liggéey jeex liggéeyal sëñ Tuubaa ci gën. si kóol. xeetu jaamu yàlla yëpp berndee ci gën. Mhm. soo demee Touba fi mu ne ba tàkkusaan jot. Mhm. nga gis njabootu ak Cheikh Fall gi ni ñu dëgmale sëñ Mountakha. ci ngay xamee ne am na lu leen ñor. te faw bala bala ñoo bàyyi li ñuy def dañ ko jàpp. dëgg la maam yonent bi dafa wax na ngeen ma roy. Mhm. sëñ Tuubaa ni jëpp na ngeen ma liggéeyal. est-ce que yàlla ko ni jaamu la ma jaamu. waaw Moustapha ñu roy leen ma. ñu roy ko sëñ ñu ñu liggéeyal ko. waaw mooy taxaw yooyu képp am moo fi ne. jaamu yàlla roy Moustapha liggéeyal sëñ Tuubaa leneen nekk ko fi. ndax Cheikh Ibra li mu defal sëñ bi ba sëñ bi defal ko li mu ko defal mhm. ku ko defalul sëñ mu defal li mu la defal ndax sëñ bi am fu mu taxaw di fa nekk jaam ñi mhm. fekkiwul kenn nag ba mu nee ni ñëw leen mhm. ku dem lam santaane nga def ko la war ci yow bu ko dee def du la tàggu maam Mor Jaara sa maam magi mag magi mag borom saam xam nga moom dafa rëy ci man ba euh, tudd ko te jooyu ma sax yombu ma ndax dañ ko waxtaanewul ndeysaan ndeysaan maam Mor Jaara déggoo woykat woow sëñ Musaa Ka wàllu yu wa ab liggéeyam mooy maam Mor jaama Jaara mhm. yéen a jaay Bamba ba xam nga ni sëñ Bamba kenn mënu ko liggéey maam Jaara am liggéeyam mooy sa maam mooy borom saam mooy borom saam ku toll ni moom xóoma ko waaye daa bokk ak sëñ bi benn néeg benn lal mel ne bàjj boo mu dee gis sañ bi doo ko xool gisuma kenn ku toll ni maam Mor Jaara waxtaanewul ko it nag déedéet wax ndax sëñ bi daa doy. dëgg la waaye bu sëñ bi desante ba ban tudd Maamoor Jaara waxi qualité am di nga gis ko ni ñoo kenn jógee ci sëñ bi dem ci Maamoor Jaara. dëgg la da ngaa wax baat bu solo mooy boo muree gis sëñ bi doo ko xool. doo ko xool benn nit benn lor benn bàjj. dëgg la boo muree gis sëñ bi mu fees sëñ ba del looy doy Maamoor Jaara loo tee ñu joobee ko. loolu di wax ju xóot la. teeg feeñ na ci sa wax de. Mhm. gis nga foofu ko wokk maam moo xam sa diine. Hmm. sa mag la am sa lan la. sama mag la suñ ñaari way jur yee ku ko gën saam xëy néewul ci réew mi gànnaar ko jur sëñ Moustapha Beto ma jur. waaw sëñ Moustapha Beto moom soxnaa leen jur mi taaw maam sëñ Moustapha Beto moom dem naa dem naa dem naa Beto ba tay ànd ak kenn xuma nuyu ko booba maa ngi bu fal hmm. nit hmm. a la su ma la masaa gis fii dootuma xef ba kenn ngay noppi ndax comportement day indi bët alhamdulillah xam-xam lay téyeem nopp. ndeysaan dignité day tax a ànd mbooloo. Mm-hmm. da ngay doon doon gone ci mm-hmm. yàlla defal na la loolu fi mu ne ku la xool sa image mm-hmm. déglu sa kàddu bu fekkee yàllaa ko tax a jóg bu amoon yitte dina ko dog ba say wax noppi dëgg la man day euh, bala ñoo jàll ci waxtaan wi dafa am euh, lu am solo loo xam ne xam naa ni lu ñu nit mën a sikke ñaar yi moom mooy sama tàmbalik àddina mooy sama yemuk àddina sëñ Tuubaa moom laa bëgg ak Seex Ibra bëgguma leneen sama yoon nekkul ci leneen sëñ Touba laa tàmbalee yem ci sëriñ bi sëriñ bi rek suñu dund sëriñ bi la suñu judd sëriñ bi la suñu dee sëriñ bi la ëllëg yomal xiyaam yàlla nañu tàbbi ci sëriñ bi xam nga sëriñ bi loolu nag Cheikh xam nga maam Cheikh ak bi ñooñu ñëpp sëriñ bi sëriñ bi Cheikh Ibrahima taalibe bi dama mas maam Cheikh am ko ni maam Thierno ma ni déedéet bokk nub lii maam Thierno sëriñ la Cheikh Fall murit la murit la sëriñ la xanaa xam ne am na waxtaan naa ku mel ni yow am ko addu ma bëgg di waxtaan ak euh, baa dégg nga jabootu Cheikh Ibrahima am ko ni wax mm-hmm. am ko ni waaw maam Thierno jëwri man ko déedéet mooy jëwri ni sëriñ si mm-hmm. ndeysaan ndax maam Mor Jaara sa maam lay mm-hmm. mage mag kenn liggéeyloo ko ndax war ma ak teggin ak la ko yàlla ëmbalan mu bokk sëñ Tuubaa maam Jaara waane jëwri sëriñ si maam Thierno la jëwri ni murid yi Cheikh Ibrahima Fall bokku nu léegi sëñ bi ak murid bi bokkul. sëñ bi jiitu murid bu topp ko baabul muridina waaw. kenn ñoo ko waxee mu ci danoo sar xoolee. man leen Thierno jëruñu sëñ si ndax ñi fi moo leen jàngal. dëgg la. ku jàngal ñi fi raw yaa raw. waaw yaa raw te Thierno fa mu ne ab murid mënu ko faa fekk ab sëñ ñu ko fay fekk. dëgg la te bala ko faa see fekk. Mhm. dina toog ba xuuge. Mhm. wallaay yi nag. di mhm. nga gis ku fel luy ji laxasaayu liggéey wàllu yu. ba yegg ci yàlla dëgg la kooku Cheikh Ibra Fall la. te mooy yoonu yàlla wi gën a wóor. mooy ñàkkal nituk yàlla. bi képp matin Cheikh Ibra fam dem. la ko fa yóbbu ci ngay xam ne liggéeyal ku ne ci biir néeg bi ngir yàlla rëy. Mhm. baa xam nga ni. Mhm. sëñ euh, Cheikh Ibra dañu woon sëñ Tuubaa féete ma ci wàllu wàllu yàlla ak rasulullah mhm. di julli di tagg Moustapha bul bul tal a génn néeg bi gis jant bi. ma féete ci biti li leen liggéeyal ba du ma tal dugg ci néeg bi loolu yàlla fay nu bokk. ku yor njaboot. léppay dox génnoo nee bi ngir bëgg yàlla rasulaay ak alxuraan. Mhm. la la yàlla fay mën nga koo lekk bàyyi kële téye njaboot. déedéet Cheikh Rafal neex la sëñ na ko mun ko yaa ma jëkk xëy te jëkko wàcce goo bi may gont si ci yow ci tool yonent bi laa la fekk. sallallahu te wàcce goo nu may gont see nga di ma wàcce. contrat sax lu mu ko waxoon keroog bu muy jébbalu. da ko di bu ma la gisul woon. waaw kay. Mhm. Mhm. wa sallam loolu laa fasal. damaa bëgg nit ñi xam ni Cheikh Ibra li tax sëñ Bamba jóg ci Rasulullah moo tax Cheikh Ibra jóg ci sëñ Touba Cheikh Ibra du gone. tayit lu sëñ Touba am ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam Cheikh Ibra am na ko. am na ko sëñ Touba loolu nag doomi soxna yi mel ni yow. Mhm. jàng te jaamul yàlla mënuñu koo xam baa xam ni ku jàng xam. ku jaamu yàlla ragal ko am. dëgg la xam-xam ak am-am bokkul. dëgg la Baye Fall bu liggéeyee Cheikh Ibra Fall day xëy fees dell te du xam nga jàng ba fees dell ak xam-xam jaamu ragaloo xam nga waa ne jàng sax dafa taxul taxulee yegg ca yàlla. mooy ndax ndax ki ji ki jiitu ñëpp ca yàlla. bi alayhi salaatu wa salaam jàngul. xam nga dama la ko leeral man. yàlla la soob rek ku jàng <laughs> boo jaamuwul ragaloo li xew doo ko xam. déedéet te li xew ku ko xamul doo xew. dëgg la ku génnee ENEA wala ENAM. Mm-hmm. am say diplôme embauché wu la nga liggéey. Mhm. bu weer wi dee fooy fay ko. kenn du la fay sëñ Cheikh Khadim mii nag bi muy doon bàyyam fukki at ak ñett la am fukki at ak ñaar. te te te douze ans treize ans garaaw la ah. parce que yi sëñ Assis Fall xalifam sëñ Mortala. Mhm. mag ñëpp ñëw jébul ci moom seex ànd ak gone yi dox wuti ko. di dem ba yàgg. Mhm. sëñ Assis woo ko bi mu jotee buntu néeg ni ko mag ñi mën a téye leen kër ñëwal ànd ak ñoom ni sa baay ànde woon ak ñoom liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall. macha allah ñëpp del si. parce que li ma gën a jaaxal ci moom. sell ak set. ak xam boppam ak dignité. moom sëñ Seex Xaadim. ni yow la mel. yàlla na ko yàlla yokk wér. boo ko fekkee mu toog nii. da nga naan sëñ Fallou jur baayam xam nga lu waral loolu. ndeysaan Seex Ibra Faal jur sëñ Mortaala jox ko sëñ Bamba mu yar ko. Mhm. sëñ Tuubaa da ko daan dugg duggaale xalwa. buy dugg ci néeg tëju. Mhm. sëñ Mor lay dugal. dëgg la. am na benn bis. Mhm. sëñ Tuubaa yónni ko ci maam Seex sëñ Mortaala ñëw si Seex Ibra ni kee kaan ñun ko moomal sa mes ni ci sëñ ba xara la. sa salo bi ma ko meññee man mii la duppi woon maanaam yoo ko joxee Sëriñ Tuubaa moo ñaat da nga naan Sëriñ Fallou jur la Baay Fall ni man boo ko fekkal mu toog nga ni Sëriñ Mor Talla Fall da ko sànni Sëriñ Fallou Sëriñ sa jëng meññ mm-hmm. wala Sëriñ Baara wala diw ak diw Sëriñ ma jëm kenn rek waaye mag ñaar jëm eh, kenn yi doon wax nee na uh-huh. Sëriñ Tuubaa Fall mm-hmm. tengu loxo la ak biti loxo. benn mënta dem bàyyi jëcc des. daa di wax takk ndeer la ak jëmmam baa xam ne li jigub takk ndeer jigul jëmm. déedéet. moo tax Cheikh Fall li mu sañ moo ko njabootam gii doo ko fekk Sëñ Fallu. déedéet doo ko la nu mm-hmm. mm-hmm. fu jëm yi jëm dañuy yóbbaale ndeem ñu ngi ci ndigal. Mm-hmm. Baay Fall nag dooleem. mooy jëfee ndigal bàyyi tere. Sëñ Ablaat nee na Baay Fall bu noppee ne ci ndigal moo ko bi yëfaleem Hmm. sëñ Abdou Lahad. moo lu ko wax eh, te te te te te xam nga lu ko waral. est-ce que sëñ mu demee daal sëñ Cheikh Fall Khady dafaa dem. Hmm. mu ne nga demee ne sëñ Abdoulaye Fall Ndar weeri feeñ na. Hmm. maa ngi digal jullit yi ñu jullit te woor saka saka nattu murum kon aj maaka saraxe sëñ Abdoulaye Fall daal ni ko demal bu ngeen demee ngeen laaj ba xam noonu dañ cee bokkum déet sëñ Muudu amit te dem ak sëñ Cheikh Fall mu ni ko lu fi sëñ Bamba bàyyi sëñ Muudu Moussa Mbacke sama mag ñu tedd ji bàyyi ko fi sëñ Fallu borom sañ-sañ bi bàyyi ko fi man Abdoulaye sama yoon newu ci la ngeen nekkan ba toll nii dellu leen ca lenn rek dox seen diggante kéefër mooy baatum ndigal yaari kër am Touba amul yett amul yent kërum digle ak kërum jëfe ndigal ku fi nekkal sëñ Bamba war a digle digle woo lekk nga bañum kër gi ku fi nekkal maam sax ñu digal la jëfee ko ñu aay seen la ca lekk nga bañum kër Seex Rafal kërum digle mm-hmm. ak kërum jëfe jëfe mm-hmm. ndigal mooy sëñ Touba ak Seex Ibra mm-hmm. macha allah sëñ Seex nag bisam bii li ni koo maam Cerno waxee def na ko at bu bari dëgg la waaye ne ren jii nag dina dina jàllu kaañ xam nga lu tax. Mhm. jëfam ci maamam daa yokk kon bis bi dina yokk. macha allah barki démb. Mhm. dafa am ay mbana yu ko xalifaam jox doomi sëñ Mortala ji sëñ Abdou mhm. di ko tong jàll juróom-benn fukki xar yu noppee màgg ak la yokkee mbana macha allah 66 limub allahu di limub turi yàlla bii ñett fukki juróom-ñett fukki xar bëkk démb ma di ko xool ba yàgg man ko gis naa ko yokki mbana fukki xar fukki xar ak juróom juróom-ñetti xar waaye nag juróom-ñetti fukki xar yu manqué ñaar. bu leet ba yoonu soso ak tey tey laa mas a gis ku amul 60 ans. Mhm. wala yem ca. ko mhm. yokkee sëñ Bana. si seex. Mhm. sa jëf yi yàlla gis na ko Rasulullah gis na ko sëñ Tuubaa gis na ko Seex Ibra gis na ko. macha allah moo nu yebal fii. maa ngi moom a maase nag. waaye nii mu mel. ba ma mm. gënee adduna ba tey xam ko mu mat ñeent fukki at ak juróom. Mm-hmm. ni la ma sa mel. macha allah bëgg yàlla. daa daa jàng alxuraan daañu ci dikkaat allah ndax damaa bëgg ci kanam ñu dikkaat ci dëgg-dëgg. Mm. Euh, borom bis boobu nga xam ne mooy Serigne Cheikh Khadim Fall. Mm-hmm. Euh, ci jikkoom ak euh, taxawaayam ak itteem ci taalibe yi loolu bëgg naa ñu beral ko pàcc boppam. Serigne Maam Thierno Diop. Mm-hmm. jërëjëf Serigne Baye Serigne Sylla waxtaan nañu sànq ci cosaanul bis bi. muy taarixu bis bi. Euh, fu mu tàmbalee ak li caaju euh, bëgg naa it ñu diggaat dëgg dëgg ci solo si bis bi euh, ak itam programme bi loolu bëgg naa ñu gën cee yaatal lan mooy solos bis bi dëgg-dëgg surtout donte junj nga ko léegi. waaw mooy woo nit ñi jëme leen ci yoonu yàlla. Mm-hmm. jaare ko ci yoonu Cheikh Ibrahima faal mm-hmm. jaare ko ci yoonu Mouride di woote Serigne Touba. Mm-hmm. waaye jaare ko ci l'islam. di diine yi euh, ji nga xam ne moom la suñu borom tànn. Euh, jox ko Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam. Euh, bëgg naa nag ñu gën a dikkaat ci bis bi. du ñàkk yuñ mën a fàttali ko ci bis yi passé woon. waaye ndigal li nga xam ne moom la ci am. ndax yaa ngi wax léegi ne atum 2003 la ko tàmbali. booba Serigne Saliou Mbacké moo fi nekkoon. murid euh, sëriñ Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacke jaar na fi mhm. euh, Cheikh Sidi El Mokhtar Mbacke jaar na fi mhm. euh, ba tey jii Cheikh Mamadou Mountakha Mbacke nekk fi mhm. lan nga ñu mën a fàttali ba tey ci parcours bis bi par rapport ak kilifa yi fi nekkal Serigne Touba Euh, jamono jooju yaakaar naa bu ma jumul sëriñ Modou Aminata Fall. di mhm. euh, sëriñ Modou Fallilu Fall moo fi nekkoon. Mhm. Euh, sëriñ Cheikh Jëmb Fall it jaar fi. ba tey jii mhm. sëriñ Amdi Modou Mbenda. ñaari <laughs> diggante yooyu lan nga ci mën a fàtte. waaw ci taxawaay bis bi ak diggante Mor tontu bi fi may tàmbalee mooy dama lay wax ni. waxambaane gëléem. neex fanaan biti naqari fanaan biti. loolu lu muy tekki. mooy bés bii. fi mu toll nii. c'est au-dessus. au delà. Mhm. ndax ki tax. muy maam Cheikh Ibrahima Fall. tax waaw waaw. te nag sëriñ bi daf koy def ci ay normes yoo xam ne si ay normes yoo xam ne si li yoonu murit dëppoo la ak yoonu maam Cheikh Ibrahima Fall. Mhm. bu dee intellectuellement. Mhm. day jaar fi mu war a jaar. administrativement day jaar fi mu war a jaar. religieusement it day jaar fi mu war a jaar. macha allah looloo fi ne de. <laughs> looloo fi ne. parce que Serigne Cheikh Khady Fall ci loolu lay dox. ñun ñii muy nga xam si ñooy comité de pilotage bi di ko piloté depuis 2003 bu fi may waxee yow. ci loolu la ñuy dox. dëgg la. selon les règles de l'art li mu laaj li bés bi laaj. Mhm. maam Cheikh Ibrahima Fall c'est la personalité mhm. l'élégance. Mhm. dignité ci côté yëpp ci côté yëpp mhm. kon boo koy liggéeyal dafa am noo war a mel dëgg la melaw Baye Fall si la wax léegi mhm. ñoom ci jëf la ñu wax waaye nag intellectuellement da ngay ñëw autour de euh, Serigne Cheikh Khadim Fall xam mhm. tu trouves des des intellectuels yoo xam si ils sont prêts dévouer corps et pour liggéey bés boobu li nga wax ci diggante bés bi ak xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall yi fi nekkoon ak xalifa Sëñ Tuubaa fi nekkoon mooy saa su ne buñ ko dëgmalee. Mhm. ka fi nekkal sëriñ Tuubaa mhm. sëriñ bi dana dem ba ca moom. Mhm. ñaan ko ndigal mu jox ko ci ndigal ni ko ñaanal naa la ci xalifa maam Cheikh Ibrahima Falit noonu ci sëriñ Saaliw ba ci sëñ Alaaji Baara ba ci Cheikh Sidil Muxtaar ba ci sëñ Muntaxaa mii nga xam ni bërki démb ba njaay la fa sëñ ba jógee waa kër maam Cheikh Ibrahima Falit noonu sëñ Cheikh Khadim daal. li ma la mën a wax ci moom ak bës bi mooy. yor na xéewaluk maam Cheikh Ibrahima Fall. te bés bi it wanewu ci maamam ji nga xam ne si mooy sëñ Mortala. wanewu ci baayam bi nga xam ne mooy sëñ Abdou Khadim. kenn rek lay joxañ muy Cheikh maam Cheikh Ibrahima Fall. te nag daa daan wax ni. bu weer feeñee nga ni weer waa nga nee. balaa kenn xool weer wi yow lay njëkk xool ni la ana weer wi. ki ki wane weer wi. waaw bu ne weer waa nga ne balaa ngaa xool wu si Maamoor da nga ne ko Maamoor ana weer wi. kon avant tout ki la wan mooy kan. Hmm, maam Seex rek. waaw maam Seex rek. waaw wane kañ war a gis. waaw kooku kana kooku kana. parce que moo gis moom. moo gis tax mu mën a wane. bu gisutoon du wane. jeex na mbir maa ngi noonu. <laughs> waaw. en grosso modo daal ci li ma ko mën a tënkee pour mën a saafonteeg waxtu wi. Mhm. foofu daal lañ toll. Mhm. léegi nag sëriñ bi nee na. Mhm. Kaolack. Ndakaaru. dayre yi bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn. mbokki Baay Faal yi kuréel yi. Pout. tëngéej ñëpp mu ngi leen di woo ci bés bi. ndax yàlla sa borom dafa dogal toog nañu deux ans ak Covid bi. amaluñu ko woon. dëgg la fi mu ne nii murit yeeg Baay Faal yi ñoo namm. Mhm. bés booba. Mhm. sëñ Maam Mor. Mhm. bu ñu xëyee. daanu jàng ay limi alxuraan ay limi kaamil. muy lu am solo. kuréelu xasida. laa lay wax. dix heures ci suba. la kuréel yi tàmbali. kuréel gu jug sa morom toog. on a prévu yoo xam ne si dañ koy dispatché. ci biir stade bi. Mhm. kilifa gu ñëw jàngkat bu ñëw. ñu accueillir la nga toog waxtaankat bu ñëw ñu accueillir la nga toog wax ci bës bi. Mhm. kuréel yi moom du taxaw. macha allah. waxtu julli bu jotee. Mhm. ñu eh, taxawal njàng bi ñuy war julli julli. ñu indi xéewal yi. guddi gi nag moom. bàyyi faal yee ko moom. macha allah léegi nag balaa guddi gi. maanaam vingt heures ba vingt deux heures ba vingt trois heures ñoom bàyyi si la bàyyi faal. daan am plateau spécial bu ñu def ci maam Cheikh Ibrahima Fall. buñ fa paree nag. ci guddi gi nag ñu dugg ci biir stade bi. Mhm. Sikar Samfal baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ba fajar macha allah. bernde it mhm. dana bari lool. macha allah ndax sëñ Ablaye dafa am lu mu daan wax. Mhm. nee na ku mbooloo ba ñu ñëw. bu sa ñam yàquwul sab der yàqu. dëgg la sa ñam yàquwul sab kon ñam daa war a doy sëkk ba. waaw waaw sëñ Maam Mor bi dañoo lekk ba suñu biir fees. waaye bu déyut ah sëñ maam moo de bisam bi moom mhm. moo tax mu ni bu sañam yàquwul rek sab der yàqu parce que parce que àdduna moom ñaari ñaari ñaari dund yi rek moo fi am waaw muy dund biir biiru bopp ak dund biiru bàmmeel mhm. mooy ñaari yefal nit ki da ngay yefal aw yaramam mhm. soog a mën a yefal ak ruuxam nit ki boo ko joxul mu lekk joxoo ko mu naan yaakaar naa tax ponki jaamu yàlla yi sax du ko du ko mën a matale du ko mën a eh, da ngaa wax lu am solo mooy Euh, li nga xam ne mooy ponk bés bi te man damaa jàpp ci sama gëm-gëm xaw ma mën a kan nag mhm. mooy ginnaaw alquran ji wàccee ci suñu borom subhanahu wa taala mhm. hadis yu bàyyi ko ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam xasiday sëriñ Tuubaa yi amul lu ko gën ci kaw suuf amul lu ko gën ci ak addina ka laax man loolu laa gëm personnellement mhm. <laughs> bàyyi sëriñ si la euh, dama bëgg sax ñu ñu ñu ñu comp donte du fi xaj ah, Cheikh Ibra personnalité bi Cheikh Ibra surtout fii jamono toll. maa ngi ñaanal baay Ndiaga Diop yàlla yàlla yokk ay leeram. te doon ko njëggal te wanale ko ak waajuram wu tedd wa bu ma ne waajuram Cheikh Ibra laa ci jublu. Mhm. ndax moo doon bàyyam ci diine. Mhm. da ko da góor. doon bàyyam ci diine sëñ Cheikh Fall góor moom li tax ma junj la léegi suñuy waajur wu jigéen ki ko jur di bàyyam. Mhm. jëwri ni sëriñ Modou Moustapha Fall la woon ca Touba Fall. jëwri ni sëriñ Cheikh Fall bàyyib góor la woon. sama néegum ndey ñëpp ay Baay Faal lañ kenn ku ci génn kër Cheikh Ibrahima Fall amul sëñ Moustapha boo mboole ci Sëriñ Touba euh, ma bëgg ñu dikk ci personnalité bi Cheikh Ibra lu gàtt rek nan la ndaw ñi ba ci sax mag ñi ku dul sëñ Touba Cheikh Ibrahima sa baay man loolu laa gëm moo tax ñëpp naan ko aboori jaal bàyyi góor ñi bàyyi góor ñi personnalité bi Cheikh lan lañ ci mën a raw lan lañ ci mën a royee rawatina ñun ñi nga xam dañoo nekk ci yoon wi tey mooy njariñ li njariñ li gën na rëy ci àddina njariñ li gën na rëy ci àddina te mënuñu koo ñàkk moo ko jëkk a gis foofu ngay mën a xamee personnalité bi Seex Ibra ak bëtam bu leer ba ak xam-xam ba ak xam gim xam li xew dëgg la ndax ah, mas nañ xibaaru jébbuloo bay wax ni yàlla mi ko moom mhm. moo ko ni Bàmba moo la moom xam nga Seex la mhm. yàgg naa baax de egg séegul ci sëñ Tuubaa am maqaamam yàlla wax ak moom. ni Moussa Kalam ni Moussa Kalam la tey leneen la. Serigne Soñ bu nee na. yàggumaa xam ni kay da doon yeggale si waaye moom yegg na ba muy ñëw. gone du ko gis xanaa xamoo ni Moussa Ka dafa wax ne billahi mi sëñ Bamba tëggee kuy wàllu yu nga. maa ca teg ni ku wàlliwu doo wàlliwu tëggum sëñ Bamba wenn wàlli yu ñemewu koo tangamlu nitu saree nag sañ na koo tangamlu wala wàlli yu ñemewut a tangamlu sëñ Bamba ndax benn ministre du ma Macky Sall sëñ Touba day waxoon na ci làmmiñu boppam ne. Hmm? ku bëgg xam ku ndeyam liggéey. Hmm? toogal ci sama bunt bii ku la fi bu dugg rek kooka ndayam liggéey na. mas na may bàkk mel ni mbër mas may bàkk mel ni mbër ni ko war ngaa sant sa ndey mu ma lii sëñ bee du sama ndey man ko. sant jigéen <laughs> soxna. Uh-huh. ab raay la sëñ Bamba saxaar la saxaar dem fa ab raay amul. dëgg la. ku la gën ndey. bu hmm. doo yóbbu sëñ Bamba moo la ko jëkk a jàpp. macha allah. waaye nag ku sa ndey téye mhm. doo jot sëñ Touba dëgg la sëñ Touba fa mu ne mhm. ndey ju baax a fay dem dëgg la yóbbaale fa doomam sëñ Touba rek se maam Seex dafa am lu ma xam ci moom man mhm. moo ma wax ne ma xut bu samaan laa ci télé laay wax de moo ma ni ñu ko ne ma xam nga maa mën ko déen mun ma maay sa maam Seex Ibrahima Fall xam nga maa mën ko déen mun ma xut bu samaan laa maay borom jamono waaw ba keroog laa xam ne xut bu dina di wéeru ci xut bu sëñ Bamba ci lañ ko mën a tuddee xutbu la dëgg la ndax daa doonu euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam doonu Cheikh Mati Al Sarif mm-hmm. doonu Jiili Cheikh Abdoul Khadi Jeylaani doonu Saasali boo gisee sëñ Moon Mbay Sise ma mm-hmm. ab kaamil la mm-hmm. jukki yi bu dajewul kaamil du am baa xam ne alxuraan muy kaamil téere yi dëgg la Muhammadu Rasulullaah muy kaamil bu yonent yi dëgg yëpp sëñ Bamba seen kaamil lu baax fu mu woon lépp manqué sëñ Bamba lépp mooy kaamil bi jukki yi mu dajee kaamil bi am mm-hmm. mooy sëñ Tuba donc bu ma sa topp góor yàlla guy lijjanti si jamono Cheikh Rafaay si kaamil dëgg la ndax ni ni mu toppe toppe woon sëñ Tuba mm-hmm. ak ni mu ko doon fugloo mm-hmm. saaba yi àggunu ci woon dëgg la saaba yi daan daan wax ñu bu bu deelu Moustapha xalaat ñu xalaat fekke ko ñu waxtaan Cheikh Ibrahima lu Bamba wax mu daal di naaw wallahi lu baax foo réem jërëy ya sant saaw naa ko da ngay deltu ginnaaw jàngil mu rik pexe baa xamal ñaari wàllu yi laa gën a bëgg ci àdduna xam nga xamal nga loolu kan a kan Cheikh Omar Fouti yoog Cheikh Ibra lu tax loolu. Cheikh Omar moo déclaré seen la Fall mi ëllëgee loolu. war na ko ba Màkka del si gis ko. dëgg la topp leer bi ba ba Mbàkke. waaw joxe foofu ci waaw Fass moom wala lay dem. macha allah te ñi saa déclaré war yonent bi. Mhm. gis ko. sallallahu xëy na ki ñi saa moo xëy ko xamal. dëgg la kenn mu ci bàmmeel. Mhm. Isa a déclaré Moustapha. Mhm. kii a déclaré Xaadimal Moustapha. Mhm. Isa amul bàmmeel Cheikh Omar Fouti amul bàmmeel. Mhm. ñaan naa suñu borom tudde ko doom ju wóor. mu xamee mu ko yàlla maye. na tudd Cheikh Omar Fouti yu doom ndax fa bët ba nekkan ba muy gis sëñ Bàmba te ñuul àddina. ci laa xamee ni kooku mbër la. macha allah wallaay. la ma dal ci moom. Eh, eh. ci mujj moo ma dal ci Cheikh Ibrahima Fall. doo bari nag Baye Fall bu wax la wax. dëgg la mbir la. dëgg la sëñ la nee Maam Mor noo li ma ci am laa ci xam li ma ci am rek laa ci xam. mënoo dépenser li nga sëñ kenn ku ne li nga am ci moom nga ci xam. garab gi moom wet gan nga cee féete rek nga mën a gis. déggoo léegi mu ni. la ca a koy tuddul sëñ Moxtar tuddul sëñ Abdou Khadim. xam nga lu ko waral. Mhm. Mhm. dàtt bi la ngooy. bànqaas yëpp fekk si na ko. allah am na solo xam naa ñi ngi may junj sax ne ma li ñu cërale woon ci wàllu waxtu. Mhm. Euh, jeex na euh, tàkk ndax Cheikh Ibra xajul ci jataay moom de buñ fi waxat ñaari baat it monde bépp yëg nañu sax bu doon dix heures de temps ñuy waxtaane Cheikh Ibra bu ñuy tàggoo <laughs> day mel ne dañuy soog ah, moo tax xam naa kon ñu kàddu yu mujj yi rek ci jataay bi eh, bu ko defee ñu mën a nuyu sëñ Fallou waaw dem ci sëñ Maam Thierno mm-hmm. nuyu sëñ Cheikh Ndigal sama mm-hmm. sëriñ sëriñ Cheikh Ndigal Fall ndax man damaa bëgg Cheikh Ibra ba ku koy liggéeyal te gën ma koo jege ngay sama sëriñ wallaahi sëñ Babacar Si la sama sëriñ mooy sama taawu ndey ndeysaan ñoo bokk ndey ak baay ci moom laa yeesal. Mhm. ginnaaw bu sama baay demee. Mhm. mu nekkal fi sama baay. Mhm. ni dal na sëñ Fallu sëñ mu demit ni sama baay noonu dal na sëñ mu demit Fall. ndax sama baay ak sëñ mu demit ak ci alxuraan ji ak ndigal yi ngërëm yi. sama baay ni ko dan ba mu dem mu dem sama taaw baay ni dan taaw sëñ mu demit. macha maa ngi nuyu nag soxna Anta. Eh, moo ko waxee maam Thiorène dina ko xam. mooy soxna Moustapha Sène murid bu mag ba ndeysaan te sëñ a Khadim Fall nekk Europe mm-hmm. ñëw fii dellu mm-hmm. yàlla moom ko démb rek dem naa ko nuyu njabootam gépp di ñaan sunu borom yàlla yërëm Moustapha Sène amiin yaa rabbal te fab ay xéewalam ak ko ci seen kaw maa ngi nuyu boole yoonu murit mm-hmm. di bëggaat ci fekk gi ma la fekk fii ndax sëñ Moustapha moom ku mu jur murit ngay doon man damaa gën ci sëñ ku ko miinam xam ko bu la gisee doo ko bett ndax bàyyi séddale waaye ku sa yaay nu nga am yal na yàlla fajaaju yëpp waaw ah, ci barke sëriñ bi waaw ah, maa ngi nuy wàcc la gépp itam nag di ñaan suñu borom ñu woor ci jàmm woori ci jàmm tudd fan am barke imaam Seex am naa mbég lool ah, waaw jërëjëf jërëjëf ca sëñ Maam Thierno xam naa kàddu yu mujj ci jotaay bi. waaw xanaa doole sant rek. ci jotaay bi ak mm-hmm. am mbégte ci ndaje mm-hmm. gi. Mm-hmm. ak gise gi ni ko bàyyi si la waxee léegi. macha allah waaye lépp njant cant geeg gërëm léeg lépp dañ koy delloo sunu sang bi Serigne Cheikh Khadim Fall. macha allah ndax bëgg gi nu am ci moom. am na ci moom sago. ak cofeel gi na mm, xam naa sax li ma fàtte woon bala ngay tëj waaw eh, ñàkkul koo xam ne eh, dafa bëgg a bokk ci cant gi moo xam ci jëf moo mm. xam ci teewaay waaw eh, xëy na fañ koy defee bëgg na ci ay leeral yu gën a yaatu ñàkkul numéro téléphone yoo xam ne waaw ku bëgg ay leeral ci comi ay leeral ci comité d'organisation beeg bés mhm. beeg la mhm. eh, a wootee parce que loolu dana am solo bi moom mhm. ku ci bëgg a jëf baa nga ci bëgg looy leerlu rek mën nga maa woo ci 78 78 372 372 26 72 26 72 waaw waaw muy kuréelu xaside yi nga war a yi bëgg a jàng ci bés bi ak képp ko xam ne bëgg ngaa barkeelu ak lépp loo bëgg ci bés bi ak renseignement boo ci bëgg am baamtuwaat ko waaw 78 372 26 72 macha allah incha allah jërëjëf wasalaamualeykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf euh, euh, Serigne Baye Silla Baye Serigne Silla Baye Fall mhm. ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant di gërëm bu baax it euh, Serigne Mame na Diop moom itam ñu koy ndokkeel bu baax a baax ay ca kon mbokk yi bis baa ngoog ngeen bàyyi ko xel mooy cant la goog dañu koy sant di fàttaliku. Euh, maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Fall Baal bu Mouridina euh, mu war a ren ji war a doon vingtième édition mu di ñaar fukkeelu édition biñ ko tàmbalee ak léegi euh, ki koy taxawee nag mooy Serigne Cheikh Khadim Fall tabarakallahu moom Serigne Abdou Khadim moom Serigne précision bi ma bëgg a def rek mooy date butoir bi mhm. le premier mai la waaye ren day jege korité moo tax parce que korité deux wala trois mai lay doon moo tax sëriñ bi def koy ndigal puus ko bala set loolu yërmande la kat incha allah loolu yërmande la loolu yërmande la <laughs> rawatina ci suñ mbokk yi ndaw ku ndaay ak mbusoobe yi <laughs> loolu yërmande la ci ñoom ndax korité euh, bu doonee le deux euh, xëy na ñu war a xéewlu ci bésub euh, sëñ Abdou Khadim bi waaw mu ngoog aha sëñ Abdou la boo xam ne mhm. ku yëngu nii nga mhm. allah jërëjëf lu ma mhm. Karim moom fa lu sëñ Fallou borom makaarimal axlaax jërëjëf jërëjëf mbakke yàlla na ko yàlla yokk wér eh, te dooli ko fee yàggal bu baax te dooli ko wéral ay eh, ci kon mbokk yi bis baa ngoog eh, samedi lay doon la 7 mai 2022 ñi ngi profité bu baax a baax di siyaare bu baax suñu kilifa yëpp ñu nag ay murit lañu te ay saadix lañu bëgg a doon mm-hmm. lu ñu waaye di ñaanal rek nag ñu ñaanal ñu doon dëgg-dëgg taalibe Serigne Touba maa ngi gërëm bu baax tey sant soxna Mominatou Kébé ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne am na ko ci ñun waxtu bu nekk saa su nekk addiyam dakkul ay xéewalam itam dakkul waaye jàppale gi nga xam ne itam moom lay jàppale ñiy yëngu ci wàllu diine soxna Mominatou Kébé moom Serigne Abdoulahi Tagé moom Serigne moom Serigne Saliou mu ngoog jërëjëf ay ci kon mbokk yi télévision Futurs Médias ngoog seen émission seetu Ramadan ngoog ay ci kon daañu fi dellu dellusiwaat ëllëg ak jàmm lu may loolu ah Serigne Gana Messere ca kanam lay doon wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا